borom style bu particulier bat bu extraordinaire moom mu nekk nit ko xamante ni dootuñu ko présenté kenn ci milieu musical du Sénégal euh, sama grand sama xarit Dia Émile borom géejewaay borom voix bu nice bi ah ana sama yaay. sama yaay rek sama yaay sama yaay xam nga rek euh, affaire bi nice na trop moom mooy. mais Dia son boobu est ce que xam nga ni fi ma mës a fekkee nga woy ko yëpp daanaka nit ñi dañoo jooy. waaw parce man. man sama yaay mooy suma lëpp mooy suma sëriñ mooy suma xarit suma papa suma gaayen la parce que góor la waan suma yaay dafa nekk suma jigéen boo xam ne suma gel la suma jabar la suma lëpp la suma sonne si këram laay tëdd ma jaaxle si këram laay dem tëdd ji kon kooku kon mooy sama lëpp daal en moom moo waral loolu man sama yaay laay woy ba bés may dee ma ci ñamal tuuti sama yaay inna yaayam ba inna yaayam bu yaay ma bëgg sama yaayam yaayam ku ñaan yaay mais mais li ngeen si yaay neex na trop. yaay rek. mais mais sa diggante yow waa defal nice lan nga ma ci wax. man ak Alain ñoo bokk ndoor euh, foo ndoor ñu door ndoor on a fait actuellement 26 ans de carrière ñu ngi dugg si 27 ans man ak Alain sunu sunu rakk la nekk sunu xarit. nekk suñu frère nekk suñu lépp waaw man nag Alain démb la woon sama jabar Alain mooy xaritam sama doom Alain lay déglu Alain ma ak moom ñoo defandoor lépp man Alain daal mënu ma wax Habib. rakk la c'est la famille. parce que Habib man maa ko yoroon CV Abe. Habib man maa ko yoroon CV Abe. ça fait plaisir alors nga gis sa xarit bi nga xamante ne vous avez tout fait ensemble sa rakk bi nga xamante ne yéen a nekk doon CV nga gis leen ñuy évoluer ci milieu bi mais ñuy évoluer qu'il faut lan nga yëg sa xol man man kontaan la am lu ma doon ñaan ale mooy mu am album album defal naa dafa waroon na jot bu yàgg te man lu may def nii yàlla bu ma tee damaa jënd wante yàlla rek moo xam lan moo def si ginnaaw yéene naan lu ëpp noonu sama tournée yàlla nañ si bokk. amiin yàlla nañ si bokk ñoom ñëpp. alors ñu ngi lay jaajëfal. merci man maa ngi remercier tamit caméraman bi. remercier yow mi sa bopp Alioune Diop. di remercier actuellement lu ngeen di def ne actuellement c'est nice. yal na leen yàlla jàppale. amiin yal yàlla jàppale. Dia Emile borom yaay booy merci beaucoup jaajëf.